bokki jullit yi lu baree baree baree baree bare ci nit ñi bu ñu tëddee guddi ba wéet li ñuy njëkk a xalaat mooy taal seeni portable fas yéene seetaan ay vidéo yoo xam ni góor ak jigéen ñoo cay sëy lu tax ngir bànneexu ca te ñu koy def ñépp du ñu bëgg kenn fekk leen ca dañ koy nëbb bu ndee boromi soxna dañ koy nëbb seeni soxna bu ndee boromi njaboot dañ koy nëbb seeni njaboot ma bëggoon fàttali nag ni lépp lu waay di def di ko nëbb doomu aadama yi loola jekkul rafetul baaxul te lépp looy nëbb doomu aadama yi ba teguñ la bët bàyyil xel ni sun borom tabaraka wa taala moo ëpp ñëpp doole ëpp ñëpp kattan ëpp ñëpp pexe mi ngi lay gis jamono jooju te moom mi lay gis jamono jooju tere na la ko te képp kuy xool vidéo yu ni mel wala photo yu ni mel di ko nëbb doomu aadama yi li muy tekki mooy doomu aadama yi nga gën a jox cër ci sun borom tabaraka wa ndax bëggoo nit ñi gis ne yaa ngi seetaan loolu te wér na la ni sun borom a lay gis kooku joxul cër sunu borom tabaaraka wa bàyyiwul xel sunu borom tabaaraka wa nit ñi la gën a jox cër ci sunu borom tabaaraka wa nit ñi la gën a ragal ci sunu borom tabaaraka wa te képp ku faatu dajeeg sunu borom tabaaraka nekkoon ci lu mel nii li ngay ñaan. mooy yàlla mayaat la nga ñëwaat ci àdduna ngir nga def lu baax yàlla ko wax de yàlla nee na xatta ida jaa ahadahum almawtu qaala rabbi irjicuun laalli acmalu saalixan fi ma tarakt kallaa innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzaqun ila yowmi yubcasuun yàlla nee na ñi sàggan di def ay njombeeki jéey ak lu xaraam dañuy toog ba dee dikkal leen rekk ñu naan yàlla dimbale ñu dellowaat ñu àdduna ngir ñu def lu baax ci li ñu weesu woon ngir ñu def lu baax ndax li ñu weesu dara baaxut ci ngir ñu def lu baax ndax gis nañ tey ñu baax ñi li ñu am ngir ñu def lu baax ndax ñi doon def ak njombe gis nañ li leen am tey yàlla nag mu ni mukk lii ngeen di wax baat la boo xam ne da ngeen koy wax rek même bu ñu leen bàyyi woon ngeen dellu sax du ngeen ko def waaye nag tey lépp weesu na ak pay rek moo ci des bokki julliti yow mii di xool lu xaraam ci biir internet bi wallahi alazim sunu borom dina la laaj ëllëg yowm alqiyaamati yàlla nee na lépp lu sa bët tegu ci àdduna dina loo laaj bu yowmal qiyaame lu tax nga teg ci sa bët wallahi ku dem yowmal qiyaam dellu rek ngay ñaan ngir def lu baax yàlla wax na ko ci alquran moo ni walaw tara id il mujrimuuna naakisu ruusihim inda rabbihim rabbana absarna wa samicna farjicna nacmal saalixan inna muuqinuun yàlla mu ni kàccoor yi nekkoon fii ci àdduna nekkoon ci li leen neex di def ay njombeeki jéeya ak i bàkkaar yu bari yowmal qiyaam suñ ñëwee ci suñ borom ba gis li yàlla waajal ñu baax ñi ak ñu bon ñi nee na dañuy yëngal seeni bopp naan ay yow yàlla sunu borom tey de gis nañ dégg nañ it teg nañ suñu bët li nga defal ñu baax ñi ak li nga nar a jox ñu bon ñi kon yow yàlla sunu borom ñun de nekkuñu woon ci lu baax teeg noo dimbali dallowaat ñu àdduna ndax ñu mën a jëf-jëf ju baax ndax tey gis nañ lépp wér nañu ni li ñu nekkoon du baax du lu baax kon bokkub jullit du ñàkk nit déglu sama ojo bi fekk lu mel noonu mi ngi ci ma xelam wala ci la nekk koo xam ne guddi gu jot mu taal portable am ngir di xool ay vidéo yoo xam ne génn ak góor a ci sëy te mbokki jullit yi wallahi lazim kii di xool vidéo yoo xam ne góor ak jigéen ñoo ciy sëy loolu day yàq xolam day yàq xol di ko lakk di ko lakk di ko lakk ba xol bi lu baax dootu ci mën a dugg day yàq ay bët day wàññi ak leer ci doomu aadama day tax sab xol kastewu ba dara lu baax dootu ci duggaat nit kiy jaamu sun borom tabaaraka wa taala ba yàlla may ko ak leer mu jël bëtam bi teg ko ci lu xaraam leer ga day dem di dem di dem ba jeex takk mu ànd ak lëndëm waaye nag ki ci nekkoon tuub weesuwul mbokki jullit te dee lu gaaw la dee buy ñëw du tàggu kenn te képp ku ci faatu danga ko rëccu ëllëg yawmal qiyaam ndax ci biir bàmmeel nga ko njëkk a rëccoo ci biir bàmmeel nga ko njëkk a rëccoo mbokkum jullit tuub du wees sun borom borom yërmande la borom xéewal la nee na képp ku ko jéggalu mu jéggal la képp ko ko baalu mu baal la waaye nag ki muy jéggal di ko baal mooy ki nga xam ne su jéggaloo baalu dootul delluwaat ci bàkkaar ba bokkub jullit internet kenn moomuwut ko mën nga dugg di xool di xool ba dajeek lu ni mel waaye dawal bu ko xool mukk boo ko xoolee lu mu gàtt gàtt dana yóbbu ci yow ak leer gu bari lu mu gàtt gàtt dina am lu mu yàq ci sa xol lu mu gàtt gàtt suñu borom mën na la ci bindal bàkkaar lu mu gàtt-gàtt mën naa doon sabab bi tax nga tabbi sa war a ëllëg te yal na nu ci yàlla musal